asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan ñu delloo nuyuwaat leen gërëm leen sant leen si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a koy ànd ak Q TV ak Q Radio di téeméer ak ñett yu toftal ñett ñu andi leen xibaari digg bëccëg bi ngeen aar seen doomi ndey Linguère Basin Loum si boppi xibaar yi di ngeen dégg gannaaw bi nga xam ne nag tànn nañ leen def leen nag ay ministres bii nag moo nekk seen njëlbeen di yoon nag ñu ngi am ab jotaay lu jëm nag seen wàllum liggéey gi ak jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy jànkuwanteel seen liggéey yooyu noonu. ba tey si boppi xibaar yi di ngeen dégg nag kilifa yi nga xam ne nag ñoom leen dënk wàllum agriculture gi maanaam béy gi ñoom nag ki talaata bee ñu génn ñu ngi doon waxtaanee nag lu jëm. si wàllum mbéy mi tolluwaay bi nag si biir réew mi ak nu ñuy def ba wàññi lii nga xam ne nag mooy ñàkk gi si biir réew mi. ba tey lu mujj si boppi xibaar yi bérébu jàngeekaay gu kawe gi ñu xamee si University of the Gambia ñoom nag ni ki aral ba bee ñu génn li nga xam ne nag taamu neen di ko def si booba la béréb bi nag mu doon fukki yoon ak ñaar yoo xam ne nag ñu ngi koy def si jàngee jàngeekaay bu kawe bi tànn ay ndongo daara yoo xam ne nag ñoo war a jàngee si booba la béréb jàpp si atum 2021 ba atum 2022 mbokk yi ak yeneen xibaar si gannaaw bàkk bi lay doon ñu andi si mbokk yi comme ni leen ko junjalee si boppi xibaar yi ministre yi nga xam ne nag ñoom leen tànn si biir réew yi Gambia lu yàggul lool ñoom nag bii moo nekk seen njëlbeen yoon nag ñu ngi am jotaay ñoom i neen nag pour waxtaan lu jëm nag seen wàllum liggéey bi nga xam ne nag dénk neen leen ko rawatina nag jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy jànku wanteel si booba la béréb ak nu ñuy def nag ba andi si ab saafara si biir réew mi kii nga xam ne nag mooy vice président bi di uyoo si docteur Alieu Badara Diouf moom nag moo ubbi woon waxtaan bi gannaaw bi nga xam ne nag gërëm ñi nga xam ne nag ñoo fa teewoon moom nag li nga xam ne wan na ko mooy nag war nañoo def seen kéemtalaay kàttan ba gis ne nag liggéey bi nga xam ne nag sas neen ko ama ñu def ko si nu mu waree ndaje bi nag gis ne ne gannaaw ministre yi nga xam ne nag tànn nañ leen nag ñu nekk si biir réew mi am na ñeneen ñoo xam ne nag ñu ngi si bërëbu liggéeykaay nguur yi ñoom it teewoo woon nag bile jotaay ñoom nag si keroog bés ba junj neen fukki mbir yoo xam ne nag waxtaanee woon neen ko sa booba la jotaay bokkoon na si nag lu jëm si wàllum kaaraange gi wàññi li nga xam ne nag mooy dund gi ak li nga xam ne nag mooy utam liggéey gi ba tey nag si seen waxtaan bi nag ñu ngi doon waxtaanee nag mbiri laan waaye ba tey it ñu ngi doon waxtaanee lu jëm nag si wàllum um, training yi nga xam ne nag ñu ngi koy faral di defal suñu ndaw yi si biir réew yi Gambia ba tey bokkoon na si waxtaan bi nag lu jëm si wàllum environment ak li nga xam ne nag mooy wàllum tukki maanaam yooni gannaaw bi nga xam ne nag suñu ndaw yi dañu koy faral di jël ba tey it boole woon neen si jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy jànkuwanteel nag bu ñëwee si seen wàllum liggéey gi fii nii si réewi Gambia ba tey moom vice président bi di uyoo si docteur Alieu Badara Diouf mu ngi gën di gaaral kàddoom wax na ñoom nag dineen def seen kéemtalaay kàttan rawatina nag bu ñëwee si wàllum kaaraange gi nda doon na ab béréb boo xam ne nag du ñu ko caaxaanee si benn yoon ndax boo ko seetloo nag war naa doon taxawaayu nguur gi pour gis ne lépp loo xam ne nag wàllum sécurité bi maanaam lépp loo xam ne nag wàllum kaaraange gi soxla neen ko ñu jàppale leen nag si booba la waaye ba tey nag moom vice président bi di uyoo si docteur Aliou Badara Diouf mu ngi wax ne nag képp koo xam ne nag ab jigéen la wala góor boo xam ne nag mu ngi si biir ci réewi Gambia nag di sol uniforme ñoom nguur gi nag dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba jàppale ñooñu la ba tey moom vice président bi mu ngi gën di garal ay kàddoom nee na nag bu ñëwee si wàllum dund gi maanaam yokkute bi nga xam ne nag ñu ngi koy gis biir réewi Gambia ñoom nag dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba gis nag boobu la mbir nag andi neen si ab saafara waaye ba tey moom ki nga xam ne nag mooy vice président bi di uyoo si docteur Aliou Badara Diouf mu ngi gën di garal ay kàddoom nee na bi la mbir nag pour mu antu faaw amee seen business yi bopp yi te nekk si biir réew yi Gambia nag ñu jéem a ñëw seen naka la ñuy toog def ab waxtaan seeni biir nag pour mun a saafala béréb ñaari fan ndaje yi nga xam ne nag ñoom ministre yi nag am neen ko si biir réew yi Gambia dafa mel ni nag tey la ñu koy ndar keppe gannaaw bi nga xam ne nag waxtaan neen lu indi saafara si seen liggéey bi nga xam ne nag jamono yi moom président Adama Barrow nag dénk na leen ko si biir réew yi Gambia mbokk yi ba tey comme ni leen ko junjalee si boppi xibaar yi kilifa yi nga xamee ne nag ñoo amee wàllum mbéy mi si biir réew yi Gambia ñoom it niki talaata bee ñu génn ñu doon waxtaanee nag lu jëm si wàllum mbéy bi ak taxawaay bi nga xam nag nan leen koo def si booba la mbir Malabo moom nag dañu ko taxawal rek pour muy gestu nag lu jëm si wàllum dund gi rawatina nag lu jëm si wàllum mbéy mi ku ñëwee nag si Africa Africa Agriculture Development ñuy yëngu nag lu jëm si wàllum mbéy mi ak ñi nga xam ne nag ñooy AU seen i kilifa yi ak nguur gi si boppam ñoom naka def neen seen kéemtalaay kattan gis ne si atum 2025 lépp loo xam ne naka day sooxal mbéy mi rawatina sax indi ñàkka si biir Afrique ñoom na dinañ si def seen kéemtalaay kattan be gis ne naka boobu la mbir andi neen si ab saafara. gannaaw bi nga xam ne nag jël neen juróomi at yoo xam ne nag ñu ngi doon enquête lu jëm nag si wàllum mbéy mi si biir réewi Gambia daa mel ni nag jamono yi xam ne jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi ko doon wanteel ak boobara mbir naka la koy koy saafarayee Francis Mendy director of planning moom nag mu ngi yëngu lu jëm nag si wàllum agriculture wax na ne gannaaw bi nga xam ne nag def neen seeni enquête ba tey it am na jafe-jafe yoo xam ne naka ñu ngi koy jànkuwanteel naka si wàllum mbéy bi te it am na yaakaar ne naka boobu la mbir bu ñu ko di dinañ si andi ab saafara Samba Baro moom nag wax na ne bile mbir naka lu am solo la ndax dina xam su boobaa naka place yi nga xam ne naka soxla leen dimbal ak naka leen leen di dimbalee bu ñëwee naka si wàllu mbéy mi waaye ba tey dina am ay projets yoo xam ne dinañ ko mun a taxawal nag jëmale ko si wàllu mbéy mi ba tey ñi nga xam ne nag ñoo nekk di def bi le biir ñoom nag am nañ yaakaar ne balaa atum 2025 lépp loo xam ne nag ab ñàkk la bu ñëwee nag si wàllu mbéy mi ñoom nag dinañ ko saafara fii nii si réewi Afrique ndax boo ko seetloo nag lu jëm si wàllu mbéy mi doon na mbir moo xam ne nag mu ngi jàppale askan gi bi nag moo doon fukki yoon ak ñaar nag ñu ngi am bile ndaje foofu noonu sa University of the Gambia mu doon bu jàngee kaay gu kawe gi ñoom nag niki ba bee ñu génn tànn ne nag lu toll si junne ñaar téeméer fukk ak ñeneenti ndongo daara yoo xam ne nag ñooy war a jàngee sa booba la béréb. gannaaw bi nga xam ne nag kenn ku nekk si ñoom nag mu nga egsi si booba la béréb pour jànga li nga xam ne nag moo ko fa taxa duga te it mbir nga xam ne nag ndongo daara yi war neen koo mën a jàngee si bérébu jàngee kaay gu kawe gi am neen yaakaar ne nag dina doon mbir moo xam ne nag dina wecci seeni dundin sa kero bés ba ki nga xam ne nag mooy seen vice chancellor bi di uyoo si Albert Robinson moom naka war na ne ndongo daara yi nga xam ne nag ñoo nar a jàngee foofu noonu sa bérébu jàngee kaay gu kawa gi gannaaw bu ñu nga xamee ne nag dalal neen leen ñu ngi leen di gërëm gannaaw bi nga xamee ne nag tànn neen University of the Gambia maanaam bérébu jàngee kaay gu kawe googu noonu pour rek a ñëw matal foofu noonu seen i jàng waaye ba tey ki nga xam ne nag mooy professeur Robinson nag mu ngi gën di garal ay kàddoom nee na nag kontaan na si ndongo daara yi la nee na ndongo daara yi nag gannaaw bu ñu tànnee University of the Gambia nañu def seen kéemtalaay kàttan nag wane seen i manin bu ñëwee nag si wàllum jàng si booba la béréb ba tey moom ki nga xam ne nag mooy vice chancellor bi mu ngi gën di garal ay kàddoom nee na nag University of the Gambia di dinañ def seen kéemtalaay kàttan maanaam bérébu jàngeekaay bi ba jàngal ndongo daara yi le waaye nag ndongo daara yi tamit nañ doon ay nit ñoo xam ne bu ñu def seen i xel nag dañoo war a moom seen i bopp ba jaral leen nag ñuy bëgg a def lu leen neex si bérébu jàngeekaay gu kawe googu noonu ba tey mu ngi leen di ñaax nag bu ñu def lépp loo xam ne nag àndul ak li nga xam ne nag moom leen leen sant si bérébu jàngeekaay googu noonu. ba tey nag moom professeur bi nag mu ngi di gara ay kàddoom nee na nag gannaaw bi nga xam ne nag waat ne na nag dinañ def seen ay kattan luwaay yi nga xam ne nag tëral nañ ko si bérébu jàngeekaay googu noonu nag dinañ koo topp ne ñu fexe nag ba buñ jàdda yoon ndax bu ñu ko defee nag am na luwaay yoo xam ne ñoom si seen bopp teg nañ ko si bérébu jàngeekaay googu ne képp koo xam ne def nga loo xam ne nag warul si boobu la béréb dinañ la teg yooyu la luwaa Fatoumata duur moom nag wax na ne soo buggee nag am yenn place yu kawe fii nii si réewi Gambia faaw nag nga yokk sa jàng si bérébu jàngeekaay gu kawe gi ñu xamee si Gambia University moom nag wax na ne dafa bugg a nekk ni koo xam ne nag day yëngu si wàllum tasum xibaar moo tax nag mu dem si booba la béréb pour yokk li nga xam ne nag mooy jàngam Excel Aboubacar moom nag bokkoon na si ñi nga xam ne nag gaaral leen ay kaddu moom it na kontaanteem gannaaw bu nga xam nag yàlla boole na ko si ndaw yi nga xam ne nag ñu ngi jàngee si bérébu jàngeekaay gu kawe googu noonu nag ñu ko si University of the Gambia ndax boo ko seetloo nag àgg si boobale béréb nag dina tax lépp loo xam ne nag soxla na ko si wàllum jàng dina ko yombalool lii nag tax na bi leen mbir nag andil na ko ab kontaante gannaaw bi nga xam ne nag dugg na si bérébu jàngeekaay bu kowee googu noonu Basse Kaba Kama ñoom nag dafa mel ni jamono yi nag ñu ngi wanteel ay jafe-jafe gannaaw bi nga xam ne nag taw bu rëy nag amoon na si bi réewi Gambia lii nag tax na ñenn ñi nga xam ne ñu nga dëkkee sa tund base nag commencé neen di ragal gannaaw bi nga xam ne nag taw bi demagul fenn te it nag ñuy jànkuwanteel jafe-jafe yu mel nii si njëlbeen bi lii naka lu muy wane mooy nag atum ren ndox bi nag dina wàcca lool rawatina nag bu ñëwee si wàllum mbënd ak lii nga xam ne nag mooy dënnu yu métti nag dineen ko am si atum ren lu jëm nag si wàllum nawet bi ñuy bëri si ñoom nag dañoo jaaxle lool ndax ñoom li nga xam ne nag mooy mbënd musuñu koo dégg musuñu koo gis waaye dafa mel ni nag jamono yi ñu ngi koo wanteel si seen bërëb yooyu noonu lii nag taxoon na kenn si suñu taskati xibaar yi nag dem am ab waxtaan boo xam ne nag def na ko ak ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum taw gi bu ñëwee nag si biir réewi Gambia. Ismaila saaña moom nag bokk na si kilifa yi nga xam ne nag ñu ngi gestu nag lu jëm si wàllum wecceeku jaww gi rawatina nag bu ñëwee si wàllum ndox gi moom nag li nga xam ne wax na ko si kero ba. mooy naka nit ñi ne ñu séntu ne naka bi yoon naka taw bi dina bëri loor fii nii si biir réew mi nag tax na moom Ismaila naka mu ngi ñaax askan gi ne ñu teel a jóg nag def seen kéemtalaaye kàttan naka pour mun a gàttandu yéen a yaxute yi nga xam ne naka nar naa am si biir réew mi nee na naka bu ñu ko deful lu gën a garaaw li nga xam ne naka moo jot a amagum naka dina am ci kanam rawatina nag ñi nga xam ne ñoo jëkkee si tund boobu noonu lii nag tax na mu ngi ñaan ñi nga xam ne naka ñoo nekk si nguur gi ak ñi nga xam ne sax ñoo leen di faral di jàppale naka ñu ñëw teel leen a jàppale laata nag ñuy gis yeneen jafe-jafe ba tey moom ki nga xam ne nag mooy Ismaila Sanyang mu ngi gën di gaaral ay kàddoom nee na nag jot na jamono yi goto yi nga xam ne nag ñu ngi si biir réew mi ñu jéem leen a setal pour nag ndox bi mun a am fu muy jaar nag ba mën a àgg si géej gi. neena nag bile mbir nag suñ si teelut a jëkk weerum agost ak septembre dina doon ab weer yoo xam ne nag dinañu indil ay jafe-jafe. Hundu Koli moom nag bokk na si keroog ba nag ñi nga xam ne nag garal leen kaddu mu ngi xamal suñu taskati xibaar yi ne ñoom nag jamono yi nag am na yenn feere yoo xam ne naka lal neen ko ba pare pour jàppale ñi nga xam ne nag jamono yi ñu ngi wanteel ay métit bu ñëwee nag si ndox bi nga xam ne nag amoon neen ko. waaye ba tey Colley mu ngi gën di gaarale kàddoom di wax jafe-jafe yi nga xam ne ñoom it dañuy koy faral di jànkuwanteel maanaam ñenn si ñoom nag du ñuy ñëw nag pour jàppaleen fekk li nga xam ne nag mooy nattu dalul ñenn yi si ñoom nag lim leen di ñaax mooy nag képp koo xam ne am nga nimbal boo xam ne nag bugg nga koy def nga teel koo def laata ñuy dugal nag si jafe-jafe yooyu noonu. ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum ndox gi ñoom nag indi neen ab leeral ne réew yi Gambie nag atum ren nag ndox bi dina bëri lool waaye ñi nga xam ne nag jamono yi ñoom nag ñoo nekk di jànkuwanteel ay jafe-jafe bu ñëwee nag si yàqute bi nga xam ne nag ndox bi defaloon na leen ko ñoom nag ñu ngi def seen laay kàttan pour gis ne nag ñoo ngi leen it dimbale neen leen mbokk yi ba tey foofu noonu sa kóolóoli am na ab safara boo xam ne nag amoon na fa ba tax na nag ñenn si ñoom jamono yi nag amuñu fu ñu dëkk ak seen njaboot gannaaw bi nga xamee ne nag safara bi andi na leen yàqute bu métti bile mbir nag mu ngi am ni ki aral ba bee ñu génn ganaaw bi nga xamee ne nag ñaari waxtu nag foog na jëmal loolu nga xam ne nag mooy ñeneenti waxtu yi sa fajar lu ëpp naka sa njaboot bi ñu ngi woon seeni kaw lal nag di nelaw si booba la jamono. sa kero bés ba nag lakka bi nga xam ne nag amoon na fa bokkoon na nag ay toogu yi nga xam ne nag ñu ngi si biir néeg bi ak ay yëre waaye ba tey lekk yi nga xam ne nag ñu ngi ko dencoon seen biir néeg bi ak koppar yi nga xam ne sax ñu ngi woon si néeg yooyu noonu yëpp bokkoon na si lakka-lakka bi nga xam ne nag amoon na fa. Baboucar si moom nag doon na ni koo xam ne nag kër yaayam gi nag moo doon lakk foofu noonu ba na jamono yi mu ngee ñaax askan gi nag pour ñu ñëw jàppale leen moo xam nag dañ leen di jàppale si wàllum koppar wala sax jàppale leen si leneen li nga xam ne nag du nekk koppar waaye nag dinañ ko mun a njëriñoo. Heaven Balyo Camara moom nag nee na safara bi nag daf ko jëlee ko ndax wax dëgg neex yàlla yaakaarutoon na nag bi leen mbir dina ko dal foofu noonu sa kóolóoli. ba tey keneen ki nga xam ne nag mu ngi uyoo si Dominique Senghor moom moom nag nee na lu toll si fukki junne nag la dencoon si néeg boobu noonu nag pour teralee woon ko ki nga xam ne nag mooy doomam bi si weerum juun gannaaw bi nga xam ne nag am na fukki fan ak ñeneent waaye nag daa mel ni safara bi nag ñëw na yóbbu xaalis boobu noonu yëpp. ba tey Abdoulaye moom it wax na ne lu toll si 127000 nag la ñàkk si safara boobu noonu gannaaw bi nga xam ne nag mu ngi doon def kéemtalaay kattanam nag pour. soowee kii nga xam ne nag mooy jabaram ak doomam gannaaw bi nga xam ne nag dara génnul si booba la béréb ñu ngi gërëm ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum fayam safara gi fii nii si réewi Gambia gannaaw bi nga xam ne nag yónnee neen leen ñetti moto nag pour ñu ñëw fayal leen safara boobu noonu foofu noonu sa kootu waaye ba tey ñu ngi gën a gërëm ñi nga xam ne nag ñooy seen dëkkandoor yi bu ñu génnee nag pour jàppale leen si fayam safara boobu noonu be fu ñu tollu nii kenn xamagul nag lu andi safara bi waaye li nga xam ne leer na askan gi mooy njaboot bi nag wax diggaa ne yàlla ñàkk nen lu bëri te kenn ku nekk si ñoom nag mu ngi ut ndimbal si askan gi yal na leen yàlla jàppale. mbokk yi dafa mel ni lii la ñu waxtu mayoon ñu ngi leen di jox dig daje su jukkoon laaw buur bi mayee fekkee ëllëg si benn waxtu bi ñuy gërëm ñi nga xam ne nag ñoo fare woon si wàllu machine bi di ñaan laaw buur bi mu jéggal ñu suñuy bàkkaar mu sol ñu si musiba ak balaa di leen jox dig daje incha allahu rabbi ba ëllëg si benn waxtu gi jërëgeen jëf ñu yendoog yaama